asalaamaaleykum sama gars yi j'espère que vous allez bien man fàllu maa ngi si jàmm bu baax a baax weeru koor ren bii moom na ma yàlla baal waaye kaa yi bëri na torop laajte woon naa ko mais tey dinaa ko laajte waat damaa dégg ñu ne seytaane dañ koy jàpp ci weeru koor mais seytaane bu ren bi est-ce que rëccul sa doom moo topp sa musiba man ak yéen ba ba ñuy jël seeni ruux <laughs>

ak Fatoumata jaay Tampi un jeune kii kii. Fatoumata Ndiaye Tampi nuyool. nu ma koy waxee jàbb yaay buur nuyu naa la namoon naa la lool. nam mu jàmm Fatoumata Ndiaye dañoo mës a gisee. non dëgër fitu sénégalais yàgg naa ko gëm. sénégalais rek moo sañal a namante ak nit te mosuñoo gisee. Fatoumata Ndiaye Tampi démb ba léegi gars yi ñu ngi partagé ay photo ak ay vidéo ñu bëri nee nañ photo yi du yow ñu bëri nee nañ photo yi yow la yow nag nga ne ay montage la. ndeysaan ndax ku bët buggi ko ne xañ mbaw la te Fatoumata Ndiaye moom bës daa jëw ci moom rek dee rek ne du génn ci moom. bës da ngaa yow. gis nga yow sax mu lii. bës boo xam ne ay photo la ak ay yaramu neen. waa bës boobu moom doy na waar di. nga ne doyul waar su mu doon doy war fekk fatima ta la wala fekk lañuy woné dañ ko woné ba mu leer nañ mu bañ am benn trucage gis nga man mo xam nguluma lu ma bëgg man dama bëgg gaynde man dama bëgg ku gëm bopam te mëna dëggal bopam dem na bay génne ngoone duma jël photo di ko monter di taf kanam mais est ce que ki yor photo yi nekul def la bëgg sutural motax mu neub sa kanam man bu ko mo sutural baalu ñani comme ma suturaal ci barke weeru koor gu tedd gi yàlla ma yàlla àtte jox est-ce que doo ñaan yàlla sutura te ñu suturaal la ndax nit boo demee banaan bu ma kenn suturaal baa yàlla du xaawi sa sutura léegi yow dama la bëgg a laaj benn question lan moo tax nga sonal Ousmane Sonko Ousmane Sonko nawloowu ma ko man maa ko gën a ris parmeres mu ni Ousmane Sonko <laughs> yàlla créé na ko ne déggu nga ne baax palmarès. man mako gëna ris palmarès. man ko palmarès. nga ni. man mako gëna ris palmarès. waxaat ko. man mako gëna ris palmarès. waxaat ko. man mako gëna ris palmarès. waxaat ko. man maa ko gën a palmarès. léegi waat ko. parce que Seydina Mouhamed. bon il faut que ñu wax la palmarès Ousmane Sonko après nga wax ñu sa palmarès. li ko diplôme ma li ko carrière. ok diplôme de l'école nationale d'administration du Sénégal impôts et domaines inspecteur des impôts et des domaines promotion 1999 2001. Titulaire d'une maîtrise en droit public de l'université Gaston Berger, de Saint-Louis 1999. Ancien vérificateur fiscal. DA en finances publiques et fiscalité de l'université Cheikh Antedope de Dakar. Chargé des secteurs immobiliers. Master 2 en gestion et finances publiques de l'Institut supérieur des finances. Ancien auditeur interne à la direction du contrôle interne de la direction générale des impôts et domaines. doctorant en droit public économique ndax palmarès Ousmane Sonko buñ ko doon wax ndax duñ fi légui Fatou Mata Ndiaye Tambi wax ñu lan moy sa palmarès yow. <laughs> Mata Ndiaye té dañ koo Fatou Mata Ndiaye ku ko gis ko xam ne jambar ne jàmbaar faq tëdd la. Mhm. Fatoumata Ndiaye mo dëkku ay xeex dëkku ay dóor dëkku lu Fatou Mata Ndiaye mo marqué empreinte fii ci Sénégal ak monde entier Mata Ndiaye mo taxaw di xeexal Sénégal taxaw di xeexal askan dëgg Lol dal moy sa palmarès et que lol nga jappé palmarès yow da jay tam sa dom bo sañon lol moy nek palmarès am. Ousmane Sonko du palmarès am. Sokala Viol. Fatoumata Ndiaye tàppe xam naa ni yow su ma la toppee mbir yu du leer léegi mu taalal caméra bi euh, nga zoom ñu xool ba xam moom la wala du moom. kay benn. Mm. maa <laughs> xool. bon ween yi ween yi ween ak ween yee. nduroowul de mais xaw naa nduroo tuuti. xool ma man ma mel ku naan parab sàcc ba toog. kii wenam dafa daw man sama wen dafa dee mhm. benn mhm. daanu ngeen fii beneen bi mooy <laughs> uh-huh. Uh-huh. man tatouage daa def moo zumal pourtant maa ngi zumbe dama zumaale zumal de loo gën a zum doy doyut zumal boobu zum <laughs> maa man tatouage quinze ans <laughs> <laughs> beneen bi mooy ndaw si dafa ñëw. te yow da ngaa gàtt. man damaa gàtt maa ngi nii laa toll. beneen bi mooy maa la gisul ma fii loxo bi. jàppal ma takku sum. ma sum loxo bi sumaale ma. xoolee xoole xoolee sama fii xool fii si daanu ngeen bii baaxul mu ngi maa ngi doy na wala ma dolli. doy na wala ma dolli. léegi kaay sa audio bi ñu xool ba xam yow la wala du yow. déglu leen de dégluwaat leen gënaat leen fi. du gis nga. xaaral ñëwaatal ñëwaatal yow ñëwaatal ñëwaatal. <laughs> ñi ayuñu barke dañoo daanu te dañuy daanu boo demee bay moot au moins dañu xool sax ku ndur xaw a comme man dafa mel ko xaw a nduróog yow baat la de xaw man baat tuuti sax au moins fi ñu daal moo doy na doy na moo doy ko bon ma ci Fall yéen ñëpp gis ngeen discours bi mu def barki démb sénégalais yépp kontaan macha allah Pape Djibril Fall discours bim def ñëpp ci contane mu ne déposer candidat candidature am jéggal leen wax ak Ndiaye ba sama dama légui euh rek la ci wax jarul may discours jarul may def dara rek la ci wax je rek la ci wax Pape Djibril Fall vous êtes sans doute un bon profil pour le pays et bon sens bon sens ma bëgg que ngeen commentaire pour Pape Djibril Fall bon sens et que la jeunesse jeunesse bi yëpp ñu ngi si ginnaaw et lii rek lañ doon xaar ci yow mën nga ko profil bu baax nga amal jàmm moom gars yi lii moo nekkoon vidéo bi merci demee la vidéo et de partager saa boo leen aimé mooy gën mën a kontaan maa ngi gis like yi maa ngi gis partage yi kenn du yéen abonné leen ngeen activer notification bi nga xam ne saa bu vidéo duggee ngeen njëkk koo jot jaajëf